mbërëg supporter am ansibilahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin fatima ablaqa wal khatimi lima sabaqa nas daq bilaq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi qadr miqdar asmiyahi man shaykh ulana bas al mahdari wal ta'tufi bi nasratin ta'tafiruka sukuri kon mbokki daara ji ba tey del seen ci daara ji daara asaabu cheikh ci jumaa fan bi ci jumaa hôpital bi dellusiwaat nañ ci téere ba nga xamante ni waa ji jàngale moo ko taalif ñu ko wax oustaz Mohamed Gueye wala Dame Gueye ci feccinu euh, nitu yàlla yi ak feccinu say nitu saytaane yi mm-hmm. ah, léegi nag indi naa ci leeral yu bari maa ngi leen di laaye biir nag ci ay dénkaane yoo xam ne Cheikh Ibrahima moo ko dénkaane ci boo nekkee ci këram gi nga boole shariha ak tariqa ak fayda mm-hmm. loolu laa bëgg a waxtaane ixwaane samay mbokkoo fi ci yàlla ñooy bindab seex topp bi moo ko moom mm-hmm. ñu ngi ci paas 44 bi ixwaane fi laa sama mbokk ci yàlla fal nañ ma ngal nañ bol boolante man ak yéen bayna shari'at digante yonal al muhammadiyati wa tariqati ak way al ahmadiyati wal faydati ak li nga xamanteni moy yonu njëriñ wa al ibrahimiyati atijaniyati ndax xamna kon li motax mu ron daw ci sama xel booba ba tey Euh, bi may sangu jeeg yooyu wa saalikal faydu miir bi faydu bii nii ñu ngi bàyyi ko ci miir bi bàyyi ma ko wax wa man aw ma xaqiqatul Moustapha xaqi wa man mm-hmm. ba ci la faydu bi bàyyi ko mm-hmm. ñu ne bu dikkee lu may defal nañu mu ne aljaali amala ibi day fomp lépp loo xam ne caaxaan ak foo yi nekkoon ci ñi nekk ñoom boo bokkee ci faydu bi saxel du ko xalaat kon nag lii test la boo xam ne ñu xamee ci nag gannaaw faydu boo ci duggee boo doon fo sax génn sa xel mi génn ci fo soo ci duggee nag yow daanoo fo ngay fo est-ce que kon dunga kon nag loolu la wax bi ci lii buñ boolante ñett yooyu nàkkoon ay nekk minal muhaqiqina bokk ci nga xam ne dañoo dëggu fal xaqiqatu xaqiqa min haasil xaqaayiq mi ngi bàyyi ko ci ñeenti dëgg-dëgg yi dëgg awalu aaxiru saari baat mi fala xaqiqa génne ah, kon alquran xul waxal ne ina nii naka man day xaadaan yi gën ma arabi sama borom mm-hmm. ilaa siraatin teg ma ci yoon mustaqim waxal loolu yow mi nga xam ne yaa ci faydu bii ba boolante ñett yi waxal ne man day sama borom day teg na ma siraatul mustaqim mm-hmm. ndax tànk boole wa ñett yi siraatul mustaqim ama ko mm-hmm. euh, wala taqulu bu leen wax yéen waa yéen ñi tarbiya ina xaajatana sun xaajoo fil faydati mi ngi ci faydu bi al ibrahim ñun faydu Ibrahima lañ am soxla waaye ay dem naan ay sariha tariqa ah, am na ñoo xam ne bu fi may waxee yow am na ñoo xam ne duñ joxe tariqa boo waxee sariha ñu indi benn métier bu yàggoon ah, te man du ma roy ci ñooñu sariha ay nangam taanit kese la lañ koy wax kon nag faqat ñu ne ñu daal faydu bi dañ amoon soxla ana mi nag de. محمد جي أقول ما يقنى ليس الأمر نكمل بالمي كسالة كنين كوخينو دي إن الأمر نكمل مي على ما موي لغا قمنى حالي تلا نكون سيد لوجو دي لسيد لوجو نكون كيف كيف موي في آه صلى الله عليه وسلم وسيقنا أكسيقنا تجان لم نكون بوكو بغيس ديكال فيه ndaxte borom mu ne yow mi nga xam ne yaa bëgg a tijaan yi boo ko bëgg a gis kiif kiif dikkal fii waa Cheikh ak Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu radiyallaahu anhumaa ñoom ba tey ñoom ñett yii lañ nekkoon dong mooy fay ak kan wa xulafaawum ak ñaa xam mooy ñoo leen ut raasi di nga raasi xoona dama dafa bàyyi waa bi nga xam ne ñooy raasi duna kon waa baax na raasi doon ñi nga xam jub dafa bàyyi leen du kon xaala wax na ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu fi jawaahir yi ci jaayiru rasail mu ne mu musaahadatu haasil xaqaayiq nga janoog yow mi tarbiya yii xaqiqa asalaasati ñett wa muraqabatoo nga koy bàyyi xel moom baabul maarifatu bunta maarifa duut maarifa ñetti xaqaaqi xaqiqa yi nga koy bàyyi xel nam bëggee mooy bunta marifa alati wax xam ne moom al wilayatu kubra marifa wax xam ne mooy wilayatu ah moom mooy ñetti xaqiqa yi nga leen construire xam ne ne wilayatu suxra daanaka boo seet nag ñëpp bokk nañ ci waaye wilayatu kubra moo tëx loolu la bàyyi wax waqaala aydan fii ca jaay jaay xel hmm. anal fatxa nag hubbeeku hmm. nafatun balla balla xursit mboo xam dafa sell toog rek nga ne kiris xamatoo fa nekk loolu na xam ne balla la xursi hmm. la tey suba day xool day xëcc xalbal abdi xolu jaam bi ilaal xadras jëne ko ci bii ba moom gis bu googu mu ne ko napp bu ne ko napp muy fët fëti daf koy xëcc dina ko ci tiim in bàqee bu dak bu bu desee nag alal mu jaahadati ci na góorgóorlu na doon góorgóorlu ca moom tarbiyaa ko su ca continuer wa tasiri ak setal bakkanam bi xanaa saa il axlaaq li nga xamante ni mooy yu ñàkk fayda ca ijji ko ba mu xamee jëf bu jëf googu mu des ci góor góorgóorlu ga labal bakkan ba génn ci ñàkk fayda loolu sakkana ah gan nga dalal ko ñu ne kaay nag yow foofu dañ koy dog a dalalee recevoir mhm. wa illaa su fekkente nag dafa dem naan fer euh, euh, bi woon naa ci dëkk sangam ak nangam mhm. taara gis bu ko dafay naaw wooyel ñoo delloo alab du jàmba ilaa salaam jëm ci lënam mhm. jàmb nag boo xamante ni ah coupé nañ leer ga mu di daal ci lënam wa yesu yesu day mujj kamara a na koo xam dafa gisoon fil maanaam ci nelaw say an dara day mujj mel na koo xam dafa géntoon gis dara yuy boo loolu bëgg na ko war say xasamu yow fekkul fa daal yow mi tarbiya tarbiya pont nii lala gës buy dikkee lii nag baay boo demee ci jaay rasal boo demee ci xatam 26 ba moo ko wax maa leen ko indi waqaala wax na aydan fii qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam salaasun ñetti yëf man xafisahu na ku leen sàmm boobu moom waliyun waliyu la xàqanti wér ñetti yëf ku leen toppatoo sàmm leen waliyu wér nga waa man dayaaxoo na ku leen sànq foo moom àdduwul noonu la xàqanti lu wér ñett ku leen toppatoo waliyu ku leen sànq ah noonu nga wayu nga bi maanaam ñu ne ko gaal mooy ban ak ban alsalaatu julli ku ko sàmmante wasoomu ak koor wal jànnaabata li nga sangu jànnaaba ñett yi di ko sàmmante waliyu boo yëgee boo yëgu soo ko bàyyee yaa xam waliyu la jur wala ku la mën a jur yaa xam mbooloo moo mën a am lu mu bari bari bari na xam ne yow noonam yàlla nga waaye bokkoo ci kon nag ixwaani yéen sama mbokk yi alxaarifin mbokk yoo xamante ne yéen xam ngeen waalo moo xam ne ana dinu islam naka dinu islam fii nekk na ci maqasid aryan mboolem luñ ñu daan jaamoo yàlla surbaa ngi fii ci lislaam wa tariqatul ahmadiyati tariqam ahmadiya fiaa nekk ne maqasid turuq lépp loo xam ne muy turuq tey boo duggee tariq bi yaa ngi ci biiram wa maqasidu tariqatil ahmadiyati wa saraatil muhammadiyya ñaar yi fil faydati ñu ngi day ci fayda al ibrahimati yàq na ma fayda ibrahima wa fil yàqutati al faridati nekk ci terme yoo yàqut fari ñu ko lu taalifuñ ko fi ñu ko taalifa ca faas maa loo xam ne yëpp doo mun a mooy xalaa dawaa mi lii day continuer wa mu laa sama taa dafa taxoon ma al faydati moom tariix bi ak fayda dañu taxoo boo demee ci ifaadatul ahmadiya ah, moom danga ko fekk lan la faqaal te doomu wax tabqi mahduurin tawilatin wa fi aaxiri taati bi faydatin fa yadxulu xal waraa afawiji raxbatan lima sahadoohu min lawaa'ihi wuslatin taawdu ilaha fi kulli wasilatin kama meloon qadat الى الحنفيه فياقطها المهدي عند ثوره لداما له ابن فهيم بتيبه فصار لآلها حراما امنا تمد لحرام مكه والمدنه كن لي ني ني بن كوي وي بابا ما لا جاب لاي دافنا صح داك اسكو جودنا دير تا فاس لا نخون لي تي جامونو يوي لا لان لا وخ تدومو داي صح moom tariqa bi wa tabqaa dafay des maa dóorin ànd ak jamono tawilat yu yàgg wa fi aaxir samaan buñ demee ci aaxir samaan tàddale bi fay xam nga ni buñ dégg aaxir samaan am na ñu ko jël ne kon nag mooy wilaaya bi foofu du aaxiru zaman fa yarqulaha dina ko dugg alwara mbindéef hmm. boobaa ay mbindéef dañ ci dugg afa wiije ay mbooloo raxbatan ndaqanante dañuy dugg bu faydu booba feeñee mbooloo yu dul jeex ñuy dugg ci faydu tariqa bi lu tax li ma saahadoo ndax lañ jonoon min la waa i wutlati li nga xam ne mooy signalement wu àgg ci yàlla boo koy dugg rek àgg ci yàlla ñu ne eh waaw lii bi tariqa moom bi faydu moom ah, su ko defee moo tax ñi nga xam ne ñoo baaxoon ak ñi nga xam ne ñooy jaam yàlla yàlla bëggoon ñoom buñ ko gis rek duñu yorante pour li ma la bëgg a wax nag ne fële dañ jël taawadu dana jël si ilaha ci moom fii ci tariq bi kullal wasaay lépp loo xam ne mooy jàkk mooy jaarwaay ñooy jaar daan xam yàlla day dil saat ci faydu bi kama mi la ni nga xamante ni xatal mujj na ila boo leen diine yonent yi te ñoom mujj na ci ah ma anifa noonu buñ dikkee ñoom itam noonu la ñu delloo ci faydu ba ah noonu la delloo diine yëpp foofu la ñu dikkee bu keroog fa ya xusaa dina ko jàpp almahdi yu mahdi yu xend sóor yi bu feeñee moo tax mahdi yu ni ko ni ñuy xoolee ak ni mu taxawee dafa jiwoo ah mahdi yu wax bu nekk mooy ko taxaw di git git bii gide nit ñi ci péeb yàlla boobaa nag moom maadi yu dina dikk ci moom xenda sóor yi fa mu feeñe dara dikki jël ko fan la ko jële la daaman fa nga xamante loo am na itun ndigal sayul wér bi tey ba ten ca tay ba xam nga bu ma ko bii lii li nga wuyi boo ko jàng booba dugaguma ci ci fay du am la bu ma sàdd dégg nga seetal lim naqaree waxee xam nga léegi man bu njëkkoon bu ñu ne Taïba ma ne mooy Madina waa waaw léegi borom diggalu ne wér la nekk ca Taïba waa léegi nag ban Taïba ca Taïba moo tax maqaama kër ñett bi ci la ñëpp ñi nar a gindeeku ci lañ baaxee ñi naru gindeeku ci lañ daanu ñu ne ah Taïba mune fa sar day mu julli aliha wa tayba hara man dañuy ormal tayba ba wa aminan fay am wóolute kamit li xaraa mi màkkat nañu ormale màkk nag wala ma dindi xanaa loolu bu ñu xoolee rek xamna kon tayba baak bok boba dañuy garant sam tayba nañ samé makkata ak madina li kon lima lan wax bo gisé toujours damay génne lo xamanteni nit ñi dañ koy seet ñu xam ne lii mooy nekk ni ku bëgg nag dikk la nga doon ut ca màkk ak ca Madina nga dikk ñu ne ma nga Tayba nga ne man gannaaw daal tëgg na suñu kër duma ma dem ba ah loo ci man kon nag Mahdi nag kan mooy Mahdi bàyyi ñu ne ko waaw ah, yow ndax yaa ndax yaay Mahdi mu ne en tout cas daal jaasim ji sama loola nekk ah moom luy jaasim ji nag xaw ma ko ah, ndax da nga gis yonent bi mu ne ah, amul importance su ma ko fekkoon ak jamono bi ñoom ci man ket boo demee ci paas sept bi ba tey ñu ngi fay indi preuve ah, wala naa am nañ dalilun ay preuve ay den ba tey xaala xawli seyxina waxtu sëriñ bi Ahmad Tijaani mën nañoo da tegtaloo waxi Seex Tijaan yi ci li wax ne yépp dañu ñëw Cheikh nee na inna jamil awliyaa yi mboolem awliyaa yi yët ku loon dañ dugg sumratanaa suñ groupe bi tey ku ne wilaaya la te gisuloo ko si biir groupe bi ah bul weddi waaye nel baax na ñoom ñëpp dañ dugg ci suñ groupe bi ah, wooy ya xusoon dañ jàpp awraad naa suñ witt wi ma nga dàpp te commencé min awalil wu jóoti ba yàlla commencé amal am yi ñëpp ngi dugg ci ilaa naf fi soori ba ba ñëw ëffee ci bufta ba ñu ne bufta waaye soor bi nga xam ne mooy soora bi nga xam ne moo fi des diggante bii li fi génn yëpp ci seex nee na dañuy jàpp sarixi bi eh, nag mu ne inal mahdiya naka mahdi Cheikh ay wax de mahdi yu radiyallaahu anhu yàqutu dana jàpp ana cun isaa xaama bu taxawee aaxir samaan seetal aaxir samaan bu taxawee dana ñëw jàpp wird wi comme na ko wuykat bi waxoon nag dana dem ci borom waa ji nekk tey tey wala naa am nañ ba tey dalilu tegtal ay dana xalaa xawli saahibil fayda faydati man dama ne indil ba tey li ñu xamal ne li Cheikh wax am na preuve borom faydu bi it an nañ preuve ci ma radiallahu anhum anhu xiina ma araada tafjira xaa ba mu bëgg a taal faydu bi xaal xadri tafaat ahlaamu nahja imaamina bi siri rasulillahi kahfi wa macain wa taati qariban faydatul qadmi hayi u bi tafriqi ak yaarin fatu saa li mu def xaddi tafaat yëkkatiku na alaamu nax ji imaamina drapeau yi ngiram suñ iliman ji drapeau yi folote na fu ko defee bi sir rasulaay ci siróob rasulaay bi foofu la folotee kan mooy rasulaay kaf yi mooy sama kontu mooy sama départ kay waxtaat yi dina ñëw xariban lu bañ yàq faydatul mi faydatul xadmi mm-hmm. mi ngi ñëw si xay oo waaj leen mbooloo mi bàyyi nu ñuy waajalee faydu bi bi tafriqi ak yaaren ngeen teqale lii ak laax mm-hmm. ndax yàlla nangu fi lii ak laax yàlla rekk a fi nekk su ngeen ko defee foto saa da ngeen cëroo bi ma den place da am espace bu faydu wàcc mm-hmm. su ngeen ko defee booba am ngeen espace boo xam ne koy dikkee wàcc fa ndax fay fu mu fekkee xëyru ak lii ak laa moo tax boo dikkee loolu lañ lay lay njëkk a fexe nga dàq fa inal awaani xat mu lina bi xëyraa àla fafrikoha taltaqoo kula an fay fa naka ndab yi te xol yi xan mu lina feesal nañu bi xëyraa lu xaq lu piiw yàlla lu faydu bi moom lañ duy ci xol yi àlla dama ne mbokk yi foofu rek xooxaa tour leen li ci ndab yi su ko defee tal taqoo da nga day ku la an fay lu am bépp njëriñ mi ngi nii moo tax moom faydu buy dikk ceew ba mu waaj day fekk ndab li set wecc taa yoo duggee ci faydu bi xaccaat tilim dugal ci rek moom bàyyi la moom ni ko waxee léegi day mel ne ku géntoon rek am dara gisatu dara foo indi man Ibrahima Niass ara gis naa min faydi ci fay seqtiyan Mm-hmm. al yow ma tey fa ay dun waam maa ngay seen seen awaam waam aw de mm-hmm. waaye nag li ci li ko yàq mm-hmm. walam yul fa da fekk saa xal bin borom xol euh, fekkuloo borom xol ay salaam euh, koo xamante ni ah borom xol boo xamante ni na sii fun bu set la moo seen bu yaatu waaye fay bu muy ñëw nag xol bu set bu yàqu moo fi amoon xaale maa ngi dégg bi xubil xat mi bi ngeen bëgg xat mi wasaw ngeen dox li sikir ci zikaram furaada par benn benn bi maanaa yéen kenn kenn wa masna wala ñaar ñaar was moo te ngeen déglu nag ku la mas nak, déglu nag fayit gini, fan lay génnee ndax ma nga wala ma nga génne ci feneen ma nga génne feneen yéen daal déglu rek lii kon moom la bàyyi wax ñu taxaw foofu ko man tey daal yaram yi moom moo naqari trop. naa la ak si jàmm léegi ñu doon euh, envoyé sud bi moo nekk noonu par ordre laa def